usine bii ngeen di gis mi ngi nekk ci Touba Sexew ga di usine bu yëngu ci transformation agroalimentaire yi la jumtukaay yu xarale mi ngi bàyyeekoo ba biti réew lépp rek usine bi mi ngi tàmbali di liggéey ci lu jëm ci wàllum kafe ak tege-dege tàmbali nañ ko ci weeru mars atum 2020 booba ak léegi ay production yu am solo yu ñu fiy amal tax na li fi bàyyeekoo ñu ko yóbbu ba Ndakaaru amal lool njëriñ askan wi usine bi nag mi ngi bokk ci programme gàdd gi di ab programme boo xam ne Mabouba Diagne moo ko taxawal nekk vice président CEDEAO pour l'investissement et le développement bile programme nag am ay pàcc yu bari gën a suqale dëkk bi nga xam ne moom moo yor programme bile di gàdd gi bile si nag jot nañoo dalal visitu Mame Alassane Dia directeur général bu ko Cofinance Sénégal moom nag mu ne projet bi ñu ko jébbal itam dal na xelam ndax ay anam yu bari ñi séq projet bi ñu ràññee leen lool gisee nag taxawaay waaye projet bile itam li nga xam ne mën na ko ànd ci wàllu xëy ci réewum Sénégal li ñu fi indi mooy euh, projet bi ñu donc euh, ñu ñëw xool ko gisal ko suñu bët donc projet bi dañ ci dañ ciy sawax dëgg ndax euh, ndax ñetti mbir euh, mbir mu njëkk bi mooy ñi porté projet bi les porteur du projet donc ay nit la ñoo xam ne ay doomu Sénégal lañ yu amoon expérience à l'étranger ñëw bëgg a peut-être investir ci dëkk bi donc entreprise bu mel ni Cofina nit ñu mel noonu dañuy sawax jàppale leen donc loolu mooy premier projet bi loolu mooy premier première raison bi deuxième raison bi mooy euh, le côté intégré du projet donc il y a un côté un peu novateur pourquoi parce que projet la boo xam ne si mbay si mbay mi la commencé ñu transformer conditionner de ba jaay donc du coup ça aussi c'est quelque chose pour un banquier comme nous qui est rassurant parce que ça prouve que toute la chaîne de valeur est maîtrisée par les gens qui portent le projet donc loolu mooy deuxième raison bi tamit bi tax ñuy savoir si projet bi troisième raison bi tax ñu sawar ci projet bi et puis mënoon naa commencer raison boobu sax c'est la dimension sociale du projet donc projet la boo xam ne bi ñu ko présenté balaa ñu ñuy wax ay affaire économique balaa ñu wax affaire financière lépp li ñu njëkk a wax c'est la dimension sociale du projet mooy impact bi mën a am ci emploi bi impact xale yi yi nga xam ne mën nañ ci liggéey ñu ngi wax sànq gàdd gi am na peut-être ñu fa nekk mën a mbay mën a bay mën a bay toll ci bay donc mën nañ lañ jàppale ñu liggéey euh, ñu usine bi fii tamit fi ñu ko teg xale yi nekk autour mën na leen jël ñu liggéey après bu ñuy jaay tamit produits yi ay produits sénégalais yoo xam ne ñun ñëpp war nañ ci mën a fier bu ñu fa yeggee tamit ñooñu tamit mën nañ jël ay xale ñu liggéey donc du coup cette dimension sociale là c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous moo tax wax dëgg yàlla avec ces trois ces trois raisons ñoo tax projet bi wax dëgg yàlla bi ñu si wo bi ñu si bi ñu si waxee ñu ne duñ toog dañuy ñëw ba ci sur place gisal ko suñ bopp gis installation yi gis nu muy demee et puis xool tamit ñoom naan lañ mën a accompagner ces porteurs du projet. Mame Alassane Dia yëkkati kàddu itam jëmale jëm ci wàllu gerte gi ak njëriñ bi nga xam ne amal na ko réewum Sénégal. gerte moom wax dëgg yàlla euh, mooy loolu suñ mooy suñu waxtaan sànq bi ay temps tubaab bi doon nañ ko xeex. naan gerte dafa cancérigène nag yooyu yëpp nekk na yooyu yëpp guerre économique la nekk na yooyu yëpp amu ci euh, gerte bi am na ay déjà Sénégal lañ koy béyee Sénégal c'est un pays producteur gerte boo xam ne yàgg na Euh, suuf si nangu na ko donc du coup euh, am na ay vertu yoo xam ne euh, buñ ñu ko utiliser gëm nañ ne wax nañ si mën a am li ñu bëri liggéey ci et puis mu jëmale réew mi kanam pour une raison très simple ndax gerte li ñuy wax sànq rien n'est à jeter ci ci nu mu tudd waaw oh, xottu beeg kii beeg mën nga def huile ngooñ beek yooyu yëpp voilà yooyu yëpp mën nañ ko utiliser donc amul dara lu ñu si sànni moo tax wax dëgg yàlla daal Euh, ay temps Sénégal nekkoon na presque premier producteur de gerte ñu xaw a bàyyi yooyu mais léegi gis nañ ne mu ngi dellu siwaat moo tax wax dëgg yàlla bi ñuy woowee ne dañuy positionné wu ci affaire boobu dañ ci gën a sawar parce que tamit luy jëmale Sénégal kanam moo tax ko fi naa nekk fi. Adama Sène Cissé ne mbégte dëgg la am ci nemmeeku bi nga xam ne directeur général bu Cofina amal na ko ci seen usine bile. une banque comme Cofina qui est présente dans présente dans plusieurs pays du Sénégal rek lañ nekk Sénégal déjà am nañ fi. 40 agences te ñu gi continuer également di di di ubbi yeneen agence te tamit ñoom li leen tax a jóg mooy jàppale société yi nga xam ne dañu mel ni comme gàdd gi euh, dañuy sog a commencé wala commencé nañ mais yëgaguñ taay boo xam ne mën nañoo euh, demal seen bopp wala ñu dem di am yenn financement yi ñoom ñu leen di jàppale donc tey loolu mooy wane importance bi nga xam ne ñun li ñu defagum ba léegi am na ko franchement ñun daf ñuy encourager daf ñuy motiver également pour ñu mën a continuer. waaye nag dellu na ci projet bi ak jubluwaay bi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal di projet boo xam ne boobaak léegi lañ ca dugal mën na téeméeri million ëmb nag ay mbir yu bëri. c'est un jour important parce que ñun bi ñu commencé ba léegi depuis kon a commencé ñun dañu commencé ne il faut que ñu dem ci ñun ci suñu bopp def ci suñu kemtulaay kàttan def ci li ñu am également ba mu wan nit ñi ne am nañ engagement. boo xam ne ñun gëm nañ projet bi léegi nag duñ demee ba yegg fii projet bi ñu dépensé ci tey du ma jëlee li ñu dépensé ci ay immobilisation ak yeneen dépenses yi ñu def ak yooyu yëpp ëpp na tey cent millions programme bi mooy usine de transformation agroalimentaire bi mooy ferme avicole bi mooy euh, élevage ak agriculture usine de transformation agroalimentaire defe naa kenn du ko naat nattable ci lañ nekk nii commencé nañ ñu ngi commencé produire depuis mars 2020 ja suñ produit également ñi ngi koy jaay ci ci marché bi Touba ak Dakar ferme avicole bi euh, investissement yi commencé nañ ko depuis le mois d' avril Euh, dañu jënd benn terrain de six hectares deux hectares yi moom la ñuy def ferme avicole bâtiment yi ñu ngi koy installé euh, fii ak ne d'année on aura trois bâtiments et inchallah d'ailleurs on finira par avoir d'ici mars prochain quatre yoo xam ne capacité bi incha allah dana nekk 120 000 poulets tous les 45 jours ñun daal suñu mébét mooy di ne fii ak euh, décembre fin décembre suñ première bande génn usine bi nag di defar kafe ak teg-dege njaay mi nag mi ngi dem ba egg ci yeneen i gox yu nekkee ci réewum Sénégal ci ak fàttali lépp rek dafa dugg ci programme gàdd gi di programme boo xam ne ma Mabouba Diagne moo ko taxawal projet bi itam ëmb na benn ferme avicole ca ma buuba Diagne di wëy di jàppale askan wi nga xam ne ñoo nekkee ci gàdd Diagne ndax yi la jumtukaay ngeen di gis ñoom ñooñee la ñu ko jagleel ngir gën leen a jàppale ci wàllum suqaliku bu ko defee ku nekk mënal sa bopp